nga xam ne moom la ñu jagle la jaaykatu ganaar yi fii si marché leen liggéey bi tar na lool fii dañu fiy rendee di fi suqee lépp lañu fi defee laata rek ñu koy jagleel clients yi jaaykat yi nag ñoo ngi def lu ne ngir seen i clients bañ a mer si gi lee fii am na ordinaire am na élevage chair am na pondos fii xeetu ganaar boo bëgg am na fi dañuy dem jëndi ay bayax yaawoon pël sànjara fépp dañuy dem dañuy dem fii ba Louga sax jëli xam nga fii mooy seesu ganaar Marché Tilène mooy seesu ganaar fii moo gën a yomb dak ganaar si Dakar Master moo gën a yomb ganaar Dakar. sooy doog a dugg si biir bërëb da nga yaakaar ni ginaar yi doy na jëndkat yi duñu am benn jafe-jafe si korite gi. moonte di taxu ko demee noonu. ginaar yi fi mu toll nii moom li ma gisagun ni moom dalagul xel moom ndax gaa yi génneegun ginaar yi xëy na nag dañuy xaar dernier mois yi moo tax ñu koy doog génn. njëgu ginaar yi jamono gi toll si diggante juróom benn téeméer jàpp junni mu di njëg yoo xam ne dafay rek wékku si xeetu ganaar gi ak di saayam client yi di ñaxtu si njëg yu cher yi la korite gi nar a metti si ñoom. a ah, affaire yi cher na trop metti na trop dund bi metti na trop trop trop trop. jënd ay 10 ginaar wala nga jënd ay 8 ginaar di ko jëndee à dollar à 4000 francs wala 3500 c'est trop cher ci nous. loolu dañ ñu war a dimbali jàppale ñu si ndugg mi ak diwlin yeeg ceeb yeeg lépp quoi. jaaykat yi ñu ngi dundee yaakaar gëm ni file korite ganaar yi dinañu wàcc client yi tamit.